leer na lettre yépp mu ngi kabir kan kum ci yéene nga jot ci ci ab saak la ko def ak kawaru rasulullahi maa la ko wax Seydi Hadji Malick moo ko mayoon maam Abdou Hamid Kan mu may Gargoy Ousmane Kan doon na ko ci moom kabir kan a ko yoon toog nañ fii ci Tiwaawan wasifa ba pare sëñ Abdu ne wasifa wii day mel na ni wasifaaw Seydi Aboubacar wa dal ne bu kenn laal barkeelu leen rek dal di làmb poosam génnee teg ci diggi malaan bi ne bu kenn laal xool leen rek kawaru yonent bi Abdou Aziz Dabakh Malick ñu xool barkeelu ba pare mu jëlaat def ci mbuus mi dugal ci poosam làmbaat beneen poos bi génne ne bu kenn laal ba tey de barkeelu leen rek teg ne kawaru Cheikh Sidi Ahmed Tidiane te kii doomu Maodo la sama yoon new ci ko ko xaw ma ne ah dama lay maa ngi ñëwal yow ci Maodo laa jëm li lay wan ne moo ndar képp yonent bi incarné ko Maodo fii daaxili rasulullah huwa rasulun yamsi alal ard yonent bi la ma Cerno Bachir waxoon Muntaga daa Cheikh Omar ñëpp a ngi mu ne ma Chérif Ibrahima ma ne ko la béykataal mu ne ma dama laa wann yaa ngi ci sama biir bi ma la wannee ba noppi sëñ Abdou daf ma wann ñëpp a ngi toog mu ne ma yaa ngi ci sama biir man maa nga ca biir sëñ Abdou karimatoo ngi nii toog duma weddi ca lu ko ñépp toog mu ne leen Chérif Ibrahima booba newuma fa moo tax ma joxoñ ko moom Chérif keroog ñépp kaw doon jottali sax dafa lank ni du ko mu ne Chérif Ibrahima ñu ne ko ah mu ne man ak sëñ Abdou ñoo sëy jur doom bu barkeel bu ñuy wax Chérif Ibrahima ñépp a ngi toog ziyaare Louga waxu ko ci bakkan rek bëkk néeg bi bëgg la joppate jottali loolu Cerno Bachir ne ko tee nga koo jottali du maa la gën a ragal yàlla waxal li ma la wax maag sëriñ Abdu ñoo sëy jur doom bu ñuy wax Chérif Ibrahima bu barkeel ci ziyaare lu ko ñëpp a ngi toog karimata fekkee na dégg nga wax kañ Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu anhu maam Abdou Hamid Kane li ci des a gën a garaaw maa la ko wax maa ngi dugg ci yu garaaw yi léegi nag maam Abdou Hamid Kane xoolal ku toll ni Sukayri ci yàlla xoolal ku toll ni Sukayri ci yàlla dinaa la wax nag la ko Maodo mujj wax ak ijaaza bi mujj bind ci ndigalu Maodo bindal ko Maodo lay sabab bi lettre yu garaaw la doon bindanteeg maam Abdou Hamid Kane maam Abdou Hamid Kane di ko tontu te yam doon sàkku ci maam Abdou Hamid Kane la ko Maodo joxoon la ca ndorteel mu commencé ci la jëf maam Abdou Hamid Kane ak Cheikh Soukeyri loolu mooy seen relation maam Abdou Hamid Seydi Hadji Malick a ko jommal Chérif Yunus bi may wax Seydi Hadji Malick Maodo ko jommal Chérif Yunus mësul toog ak Maodo nii ñu toogee ci zahir keroog bi mu njëkkee liir mbindum maa ngi ñëw de fàttewuma Chérif Mokhtar fàttewuma Chérif Mokhtar de dama njëkk a tudd Chérif Younous moo tax ma bàyyi Chérif Mokhtar indi Chérif Younous Chérif Younous Maodo ko jommal bi mu njëkkee yër mbindum Maodo cofeel bu mu amoon ci Maodo dafa tiit benn diggam rëq moom maam Ablaye Niass ñoo yem maam Ablaye Niass cofeelam ci Cheikhouna tiijaan yi keroog bi mu njëkkee gis ñu bind ñu bind turu Seexuna Tijaani yi ci këyit dafa tiit ba ndigg ba nag maam Ablaye Niass ndax fonk Seexuna Tijaani ak xam gum xam Seexuna Tijaani Chérif Yunus looloo ko dal ci Seydul Hajj Malick mu yëkkati doomam yépp jox Maodo Chérif Basira ca jiitu ne leen yem leen ci Maodo gannaaw man mënumaa dem ci Maodo ma jël sama dogit yépp jox ko Chérif basiir boobu rek moo jommal wali yu bari yu newoon ci kuuru Tiwaawan doomu Maodo yi nag bokkuñ ci bokk na ci li Chérif Basir njëkk a def bi mu ñëwee fan yu tuuti la am ci kër gi rek ànd ak taalibe yi dem ci armeel Xalxuusi ndekete boobu bi muy ñëw bàyyam yépp na ko jox ko ay turu yàlla ne ko boo demee xool Maodo xoolaatal la ko Chérif Bachir ñëw am yu muy essayé ànd ak ay taalibe ci armeel ya ku ne mu jox la dog ne la sikkaral gars yi commence sikkar néew yi di jóg di wax ak ñoom ñu téppatik ñu téppatik ñu jël ñépp indi ci Seydi Hadji Malick Chérif moom ne cocc dara dalu keroog la leen Maodo wax ne yéen ak Chérif bokku leen kii sëtu yonent bi la sëñ Abdou nee ne ku ne Maodo jël loxoom teg ci sa bopp rek nga dellusiwaat ñoom ñëpp ñu siwaat mu ne shérif enn tur bi mu jox ko mu denc mu ne ba ma am juróom toogal toogal ba mu am juróom-ñaari fan Maodo joxaat ko tur wi ne ko li la ci doon lor yépp sekki naa ko ko comme dëgg dugal naa ko laboratoire ba li ci doon lore yépp sekki naa ko jëlal ah Chérif Makhtar nag sëriñam moo bind lettre ne ko ma ko mën a yóbbul ci Maodo taalibe yépp ne mënuñ ko Chérif Makhtar ne ko mën naa ko taalibe yi ne ko waxu dëgg de mënu ko de day wax rek mënu ko mënu ko de mu ne bàyyi leen jàmbur Cerno Bachiru nee na Muntaga daa Cheikh Umar nee na Chérif jël lettre bi génn ba ci gannaaw dëkk bi xool kenn gisu ko mu jël kaala gi mu takkoon ci loosam nii comme ni nga tegee kaala gi ci sa loos noonu tabarakal mu teg mu dindi kaala gi takk ko ci ay bëtam ne yàlla sama sëriñ li wax dara laa ci mënut yow nag yaa ma bind bind sama sëriñ seede nga ne mënuma ci dara waaye dama xam ne kii fi mu toll ci yow lu ne mu daj ko ci yow bëgg a gis Malick Fawade Wele wala gis lu jógee ci moom kenn nanguwu ko man damaa ñeme yàlla rek ñeme la waaye mënuma ko de maa ngi lay ñaan nag ci barke Malick moomu mu ma jëm su fekkee ne Malick am na dara ci yow sëriñ bii ma yónni am na dara ci yow ah ñaar de moo am kaala gii lay takk ci sama bëgg fii laa fas yéene fiddi fiddi ba duma taxaw te duma xool fu may jaar su ma mbëkkee garab dee su ma duggee ci déeg dee jaral na ma ko daldi ne bismillah takk kaala gi ci bët yi rek fidi juróom-ñaari jéego la daw rek yegg si Tiwaawan Cerno Bachir nee na dafa jékki-jékki rek dégg ñu naan ko yow defal nang yaa ngi daanu ci kaw mbooloo mi ndekete boobu yegg si na fi Maodo di jàngalee ci daara ji yow defal nang loo foo jógee yaa ngi daanu ci kaw mbooloo mi rek mu tekki kaala gi gis Seydi Hadji Malick toog di jàngale ci daara ji waaye mu ne Maodo faalewu ko sax mu ne ndax bu daan mos di jàngale da ngay foog ne malaaka mu toog la du raf du yëngatu du bouger du mar du naan du wax fekk daara ji parewu mu ne tukulóor bu ñëw mu ne lu ko ko mbàddaa nuyu la ci tukulóor jàngal la ci tukulóor nga jóg del séeréer bu ñëw mu ne la naafiyo jàngal la ci séeréer nga jóg dem wolof bu ñëw mu jàngal la ci wolof jóg dem mu ne tubaab yi lettre buñ ko bind ci français mu tontu leen ci arab bu demee muy français Seydul Hadj Malick foofu la Maodo sukkandiku mu ne ba daa ji Maodo jàngale ba pare ne ko mbokk mi foo jógee mu ne ko xaay mu ne ko ana sëriñ diw muy sëriñam ba mu ne ko mu nga fa ci ndigalam laa ñëwee sax mu ne ko lu lum la yónni mu génnee lettre bi jox ko Maodo jàng jàng jàng muuñ ne ko boo demee ne ko baax na defal naa ko xam ne preuve lay ut mu wëlbati lettre bi bind ci gannaaw matlab bi góor gi soxla yépp mu tontu ko ci ci ay chiffre jox lemaat jox ko waa ji ci loxoom nag ne may leen ma yéen waa daara ji ma gunge ko nee na mu jóg téye ci loxoom ñu dem ba génn Tiwaawan mu ne ko ni nga ñëwee bu ko delloo de xam naa ko nag ni nga ñëwee pas-pas lay indi ak ndimbalu yonent bi li ngay sëtu yonent bi waaye bu ko delloo mu ne ko ah te dinaa ñibbi de si te tey laay ñibbi balaa jant bi di so kon de dig ma ci dimbale mu ne ko looloo tax ma gunge la dinaa la jox baat bu gàtt matul ñetti araf ñaar ak genn wàll la waaye da ngay dem ba génn àll bi boo génnee àll bi ba kenn gisul nga xool ndeyjoor xool càmmoñ xoolal penku xoolal sow bu la kenn gisul wax ko benn yoon la gëmm gëmmal bu woyof rek wax ko dem ma masal leen ci ñaari baat saf jaanun jëf daanun ci la bokk am na lu koy tëj nag ah ñiy def lasaraal xam nañ ko mu ngi ci téere lasaraal yi saf jaanun jëf daanun la koy tëj boo ko xamee dem ñiy def ñiy def asaraar xam nañ li may saf jaanun jëf daanun ci turu turu turu yàlla yi la bokk talsam la dañ ko talsam talsam la saf jaanun jaf daanun benn baat la buñ séparé ñaar mu ngi mel ni nga ne yaa Mustafa <laughs> boo ne yaa Mustafa yaa ji mën mën nga ko dindi bu la neexee yaawu nii daa la Moustapha la tax a jóg lu tax moo Maodo ne yaa ala yaa rasulallah hmm. yaawul munaada ñépp jóg taxaw cent vingt quatre mille yi mu ne déedéet yaa afdalal wara waaw la ko wax 124000 yëpp taxaw ndax boobu ci ordre lu yàlla la Maodo di dox lu mu wax loo nga wax mu ne ah ah waxuma leen yaa afdalal wara yow mi gën ñooñu ñépp lay wax yonent bi jóg taxaw mu ne ko waaw kañ yow lay wax fa haa nahnu fi dayqin shadidil tarakumi fa haa nahnu fi dayqin wala wa dayqin ak diiqin du benn fa nu fii dayqin booboo baax mooy jamono diiqin mooy ruq diiqin ruq la rek dayqin nag mooy jamono luy gàllankoor ci jamono rek dugg na ci biir fa nahnu fii dayqin walam narju faarijan si wallaahi xam nga lu tax alaajaa tax mu ne ko si wallaahi bu dul kooka nag waaye walhaad yi géñ naa ci yow mi jubal yëf yi yaa koy jubal di sublil makaarimi door a joxoñ yonent bi ne ko sadaqta ala ma qulta fii aw di diinina gariban kama fil bat i yaa xayra rahim garaba Eh, badaa xariban wa sa yahuudu xariban tuuba lil xurabaa yi moo tax mu ne ko badaa xariban kama fil bat i yaa xayra rahim xadis baa tax badaa xariban wa sa yahuudu xariban tuuba lil xurabaa yi kama fil bat i yaa xayra rahim delluwaat joxoñ yàlla ilaahi fajal ahlana ahla xurbatin wa ahla tibaa'i sunnatin waaye fi taraaxumi yonent bee ko waxoon na abdu aleyha bi nawaajizi moo tax mu ne mislama bihi qaala fil isaai nadratu haashimi moo ko waxoon waaw kañ nadratu haashimi Maodo ko waxoon moo tax aleykum salaam wa rahmatullah si Malik Maodo ko waxoon nadratu haashimi waaw kon ñu yem foofu moo tax nag Maodo jox ko baat bi xam nga lu tax ma wax ko nii lu ne danañ ko wax waaye dara du wax naa léegi sëñ Babacar si ki ko waxoon min waraa i Ishaq mu ne ko yàqu foofu rek laa ko teg saf jaanul daf daanu jaf daanul talsam la billaahi walkitaabi booy wax sirru bi di dem makkatal mukarram moom la ñuy demee màkk xefar xippi mbàkke tànjang moom la yoroon ca Jurbel wax naa ko fii barki démb sëñ Tuubaa ko seedeel mbàkke tànjang Cerno Yaxya li mu nettali moom alaaji mbàkke tànjang ci Jurbel moom la yoroon Zakaria Patta moom la yoroon Cerno Bashiru Taal ba mu invité ba ba ko alaaji Cerno Seydou Nourou seeti jee Cerno Zakaria Patta alaaji Cerno Seydou Nourou Cheikh al Islam alaaji Ibrahim Niass Baye Cerno Yahya Ali Abdoul Aziz Dabakh bañ ko seeti jee mu ne ah tey de am naa gan yu rëy aleykum salaam sëñ si baal maa xadi dañuy wax moo tax mu ne ko tey de am naa gan yu rëy Cerno Bachiru moo ma ko nettali mu ne gan yii ma am day bu rendi nit daganoon ma rendi nit teralee leen alaaji Cerno Saidu Nuuru alaaji Cheikh al Islam alaaji Dabba ah bu rey nit daganoon ma dag rey nit terale leen waaye day dinaa leen defal loo xam ni xam naa di ngeen ci bëgg Cerno Yaxya Li ke Cerno Bashiru Muntaga daaxa Cheikh Umar moo ma ko nettali nee na góor gi ne nii muy baat yi rek ne nii loxo bi rek kaaba gi ne dal ci seen kanam mu ne raay leen ñu raay barkeelu mu waxaat ni rek ne nii kaaba gi dem mu ne laaj cam na Seydou Nourou ne ko géej naa ko gis ci suma baay nuuru daan ñu defal lii nuuru moo ma jur Cheikh Oumar moo ko jur pour wan ko ne ko am naa ko Cerno Seydou Nour da ko doon ne am naa ko Cerno Seydou Nour am na ko waaye teraanga nag du tuuti te ku ne la nga am ngay terale moom loolu la leen terale Seydul Haaji Malick jox ko Chérif Muxtaar ne ko demal Chérif Muxtaar boobu moom la Maodo yebaloon Fès Faas bi Cheikh Sidi Ahmad Tidiane tëdd ne ko demal ma Faas sëñ Abdou Aziz Al Amin moo ma nettali nee na Seydul Xaaji Malik dafa dajale woon paasu Makka paasu Faas pour ziyaare ji Cheikh Seydi Ahmad Tijaani nee na bi paas bi yembee mu waaj bay waaj a dem am taalibe boo xam ne dafa bëggoon Maodo sopp ko bay tool ba mu yegg mu indil ko Maodo ne ko lii ma la indil day lu xaraam bokk ci lépp a ci sama ñaq la maa ko bay te maa ko sàmm ba mu toll fii ma góob ko jaay ko indil la ko lew na domm si sopp laa tax ma jox la ko mu ne Maodo boole kook lim dajale woon pour yoonu faas mu mat yoonu makka mu ne makka gën di farata faas bàyyi makk bàyyi fees bi dem aji makka leer na ok mu ne lii tax Maodo fomm yoonu faas ba faf dem makka ndax ba ko boolee dajale ñaar dafa mat makka mu ne dem faas dem makka mooy priorité ndax aj mooy farata di nga gis kuy sukkandiku ci yooyu di jéem a jam kër gi ci sëriñ Babacar si waxoon naa ko sëriñ Babacar si tàggu na ñetti yoon Seydul Hadji Malick sëñ Cheikh nettali na ko sëñ Abdoul Amin nettali na ma ko nee na benn yoon bi daf ko ko wax sëñ Babacar si ne ko toogal dëglu ma ah, Seydul Hadji Malick ne ko toogal dëglu ma mu ne ca déwén sa sëriñ Babacar ñëw ne ko si bàyyi man de dama bëgg a demal Makka mu ne ko toogal dëglu ma mu ne du ñett nag ndax gënumaa xam Maodo farata gënuma koo xam sunna su ma nee toogal am na lu tax bu ëllëgee su ma yàlla laajee lu tax Babacar Sy demoo Màkka ma ne ko laaj ko Maodo li tax aji wut de waaye sëñ Babacar Sy takkoon na pour aji mag mi ma koy jox nag moo ma ne bu bul tudd sama tur mag mu baax bu boo bokk ci magu Seydil Hadj Malick gi moo ma nettali mu ne Maodo sàcc ne leen Babacar bu demee Makka du dellusi ndax cofeelam ci rasulullah te lii ma yor mag ñi moom lañ ci wóolu sama ginnaaw may xëccanteeg moom pour bu mu dem keroog bi man Mansour di dem di aji màkk am wax yuñ ca wax sëñ Babacar si dafa toog ba alaaji Mansour maa ngeeg foto bi ko alaaji Abdu jëlee ji woon ci bato ba maa ngeeg photo bi ci sama kër biñ ñëwee sëñ kër si ne ko Mansour nit ñi de wax nañ ci sa aj gi lu ne ne dama la yebal pour nga sanku waaye bi ngeen tolloo ak barab sàngam ci bato bi mu ne ko si yow lañ gis yaa yëkkatiwaat bato bi mu ne ko màkk ba ngeen fa tolloo ci barab sàngam mu ne ko yaa jiitu naan la béyka ñoo ci topp mu ne ko mën lii du sonal kenn te nit ñi dañ xamut ne xutbul fardul jaamia am na jëmmam boo xam ne daa iman ci makka ca kaaba ga lay nekk du fa jóg ilimaan jiy jiite da yaakaar ni mooy jiite waaye xutbu bay jiite ndax mooy contrôler awaalim yépp fa laa jëm si kaana seydul xaaji malik 124 monde yépp 124 000 monde yépp moo koy contrôler yàlla def maam Abdou Lamine jàll na te dama dama ko cof rek Chérif Yunus jàll na Chérif Makhtar jàll na ah ñu ci def Medina Gounass ah Chérif Makhtar xaay ah waaw kañ des na ba ko Maodo yebalee Fès ne ko am na fa ñaari setu cheikh yoo xam ne duñ laalante te bu continuer du baax ci àddina bi boo demee bul wax dara nag jox ko benn dog ne ko def ko juróom-ñaari fan rek daañu juboo Chérif Mokhtar ne pat dem di dof dog ba ci juróom benn ci juróom-ñaareeli fan bi la shérif bu ka ca mag du ma tudd turam ñëw fekk ki ci gën a tuuti ci zawye bi mu kott ko ne ko sama maam nee na am na shérif bu alaaji Malik yónni buñ defut li mu bëgg duñ ko raw ñu ne ana shérif Maxtaar fekk na Cheikhuna Tidiane wax na leen tudd shérif mu ne leen maa ngi ñu ne ko kaay Cheikhuna Tidiane yi nee na li fi desoon ci bagaasam yépp nañ ko def ci kees gi nga yóbbul ko Malik ba ci kaas bi Seexuna Tijaan yi daan naa ne mu nga woon ca kees ga kaas bi Seexuna waxuma kaasu caaxaan ñii de Chérif Maxtaar indil ko Seydul Xadimaani moo tax waxoon naa leen xasida bi Maodo di jéggalu sëriñam ilaahi bi xutbil aarifina imaamina lu mën a xew rajaa yi wa xawsi bu kenn yaakaar ne dama rëy man Malick déedéet ak lu mën a xew ak lu ngeen mën a wax rajaa yi wa xawsi lil ilaahi nag wasilati ne mooy Seexu Tijaan de bu ma waxal lu amut de ak lu mën a xew ak lu ngeen mën a dégg rajaa yi wa xawsi lil ilaahi wasilati kii bu ngeen ko xamul xitaami nizaami lil wilaayati min ladun aadama ila nafxati fi suuri lil wilaayati jumlatan jumla jumlatan xitaami nizaami lil wilaayati jumlatan mu ne ah waxuma yàlla de waaye kii rek bihi artelil xufraani min kulli zallati waxul waxul bàkkaar zanb de Maodo xam na li muy wax de waxul zanb min kulli zallati gàcceeg waliyu bu ma dal xitaami da ngay déglu wax bi xitaami nizaami yaani yaani al nizaam fi l wilaaya xitaami nizaami lil wilaayati jumlatan moom rek la moom yépp la peeg moo tax mu ne bihi artajil xufraana min kulli zallati waxul zan bu xam na ne zan bu yàlla rek a koy jéggale waaye zallati mooy njuumteg waliyu yàlla bu ma dal mooy faute laay bañ mu dal min kulli zallati bii arta jël fatxa moo lu ci indi fatxa kay moo lay wan zallati bi muy wax boobu na bii arta jël fatxal kulliha waaye bu ma ko génn mukk nag wiqaayatuna tijaani min kulli shiddati dégg nga ko léegi moo tax Maodo demul Fès ay takkoon na pour dem Fès sëñ Abdou Alamine moo ma ko nettati paas bi mat paasu Makka mu bàyyi Fès bi dem Makka ba muy dem màkk fu ne jaar na fa jaar na keer gi Alexandre du dëgg jaar na fa dem na Union soviétique Russie fu ne Maodo jaar na fa kiraama boo xalaat ci kaw suuf def na ko ci diggante bi lu Cheikh Umar defoon ci yoon bi Maodo def na ko ci yoon bi dama lay tënkal rek ba yegg Makkatal Mukarram yegg Madinatul Munawwara ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Abdou Lamine nee na ma Maodo bari na téere yu mu bind te kenn muulu ko kenn muulu ko mu ne nanguwul ku ko muul te yooyu ñoom ñu ngi ko yor bari na téere yu Seydi Aj Malik fii may wax ak kenn muulu mu ne bari na yum taalif day jékki-jékki ne góor gi Alioune indi leen ko ñii ni mu ne suul leen mu ne bari na yum taalif day jékki-jékki ne indi leen ko ñii ni mu ne suul leen. na Cheikhu na tiijaan yi defoon jawahirul maani bu njëkk ba mu ne yu xasida yu bari Maodo suullu na ko ndax bañ ñun mu luy niru faute technique ndax am na loo xam ne bu génnoon rek ñu fàtte ñépp fàtte yàlla topp Maodo loolu la doon bañ fàtte ñépp fàtte yàlla fàtte bu topp Maodo loolu la doon bañ sëñ Abdou nee na góor gi kobar ndaw bu Saalum ku fi Saalum Saalum Babacar kobar ndaw nee na bés bii mu njëkkee ñëw ci Seydil Hadj Malick mu ne Maodo dafa ne dugal leen ko ci néeg bële boobu dafa dox fu ne mu jaar fa fu ne kum jaar rek ne du kii kum jaar ne du kii kum jaar ne dukki kii ba mu yegg si ci Seydil Hadj Malick Maodo ne dugal leen ko ci néeg bële mu ne boobu duma tudd turam am na genn góor gu fa ne woon am na fa at am lu mu doon sàkku ci Maodo benn tur yàlla mu ne Maodo dëgg bal bi rek ci waxin mu ne baabakar Kobar Ndaw ñëw ñu dugal ko ci néeg mu ne Maodo jàngale ba tàkkusaan mu fekk ko ci néeg bi ne ko lu doon sa tànk mu ne ko fu ne jaar naa fa fu ne dem naa fa waaye wëli bu ma toogal balaa jant di so ma xam ne du moom ma jóg te damaa dox ak sama tànk ba yegg si waaye dama dugg Tiwaawan gisaguma la xam ne yow la mu ne ko bi ma la gisee nag moom amatuma sago li may wut sax lu ko ngi ci yow mu ne Seydi Hadji Malick ne ko loo bëgg mu ne ko faatiha bu set wecc bu sell rek laa soxla mu ne ko am na fi mu ne Maodo ne ko am na fi faatiha bu set nga dégg faatiha ba mu jànguloo woon sëñ Haadi del siwaatal faatiha ba mu jànguloo woon sëñ ja sëñ haadi moom la sëñ Babacar Kobar Ndaw soxla